jërë ngeen jëf ku ruur sa bopp ci xetax mbaam yeey ko góor jigéeni réew mi duñu baaxle ci réew mi njiit réew mi Macky Sall moo ko wax wax jaa ngi ci soleil national ubbil journal bi ganam gi ci réew mi di Justin Trudeau premier ministre bu Canada la doon waxal xamal ko ne ak ngóor jigéen suñu société nangu ko la nañu lu jëm ci daganal ak ngóor jigéen ci réew mi njiit a da koy tere Vox Populi nañu ginnaaw Barack ko di daganal ak ngóor jigéen ci Sénégal loolee mënut a nekk suñu aada ak suñu diine da koo dàq te it gisuñu dara lu ay mbaal lu ñuy sene ci loi yi tere ak ngóor jigéen ci suñum réew suur soi nañu booy seet ba ca biir coowal daganal ak ngóor jigéen ci réew mi borom du mën a déet du mën a waaw di Macky Sall démb moom nee na déet mukk du fi amee Les Échos gis ne taxawaaye moom Macky Sall dese naa dëgër ndax ba muy wax ci wolof wax ju leer nañ wér péng la ca wax xam le carrément ne ak ngóor jigéen mënut a dagan ci Sénégal waaye ba muy wax ca français da doon raay wax ja ndax nee na fii ci réew mi dañu fi tere kuy relation contre nature ay góor jigéen a xeet yooyee waaye nag du tax ñi choisir dund loolee ñu leen di génnee ci réew mi ñu lii la Macky Sall wax ci français Mam Matar Gueye bu ONC Jamra ne ci xet mu njëkk Vox Populi loolee lépp dafay gudd wax ji gudd gàtt moo di ak ngóor jigéen dee suko ko fi daganal bu neexee yàlla ñu bàyyi waxi góor jigéen ñi te wax ci waxi pédophilie gi bëgg lëmbe Sénégal journal Libération xëy nañu xamal ne Abibou Gueye di oustaz bi ñu ne da doon tëdde ay xale ca Wakam ak Olivier Brice Sylvain di tuba bi ñu ne moom it da doon tëdde ay xale ca école de football Dakar Sacré-Cœur ñoom ñëpp kaso lañu fanaan biig tuumay abus sexuel sur mineur maanaam saay-saay ay xale yu foccagul moom lañ leen di toppee ñoom ñaar mu di Sylvain ak Guèye Libé nee nañu daanaka ñoo bokk oto bu ñu dugg ba ñuy dem ci rëbës enquête dina kay nañu kii di Olivier Brice Sylvain doyen des juges Samba Sall moo ko mandat dépôt li ñu koy tuumal mu di mbirum pédophile waa ji di Olivier weddi na ko ba mu set wecc nee na tëddeewul benn xale saay-saayewul benn xale massage la doon defal xale yi te ca la yam l'observateur mel ne ku naan ñu loolee mu wax wuute na lool ak li xale yi wax enquêteurs yi ubbil yéenekaay bi ci xale yi ñu ne da leen doon saay-saay am na ca xale bu am fukkeet ak juróom-ñaar nee Olivier da ko doon maaseel ay adducteur waaye massage ba yamul rekk ci adducteur yi am na it beneen xale bu leen wax ne ab óomam la ko waa doon maaseel waaye mujj gi maase na leneen lu bokkut akub óom am na it beneen xale bu toll ci fukkeet ak juróom-ñaar maanaam 16 bu ne enquêteurs Olivier Brice Sylvain mas na koo fanaanoo ci Wakam di Djidiack Diouf bu Jolof Band mi ñu tudd ci coowal trafic de visa ñoom ñëpp kaso la fanaan ñu yeewu yam ci Le Quotidien gis fa xibaar bu ñeel Lamine Koita di waa ji faatoon ca Fatick yéenekaay bi nee nañu autopsie bañ doon def ci ab néewam résultat yi génn na la ca nekk moo di waa ji kenn dóoru ko mu faatu mort naturelle la maanaam faatoo ñëw mu faatu Soleil national dëggal xibaar bi ci xët mu njëkk wax ñu ne dawalkatu moto Jakarta bi faatu woon ca Fatick verdict bu autopsie bi nee na mort naturelle la naturellement la tribune gis na ne colonisé gi réewum France colonisé suñum réew di daal ba léegi jóge fi li tax mu bind ko mooy nee entreprise yu bari yu nekk fii ci réew mi réewum France la ñu fekk baax journal bi jukki ci banque SGBS CFAO Total Senac Auchan Canal Plus Orange Money Fon Roche ak Alstrom journal bi boole yooyee yëpp gis ne France ngar dajjoon na Sénégal Sénégal ab gouvernement am l'observateur nee nañu am na ñaari ministre yu ca nekk yoo xam ne neexoowuñu du ñu jaaroo ab taal mu di ministre économique finance Abdoulaye Daouda Diallo ak ministre du plan Amadou Hott ku ci nekk ci ñoom ñaar da ngay wan sa morom ne nii laa toll ba tax ñu dëkkee ak fantasiro journal bi nee nañu mbirum xaalis la li ñu naan les fonds communs moo indi coow li coow laa ngi ne cobbay ca lycée Kër ba Jaxu ba nekk ca Nioro yëral xët mu njëkk Vox Populi benn professeur moo fa jam paaka ab élève